Baol Médias xibaar yu wér te wóor te leer. jërëjëf sama jawrin euh, ginnaaw loolu dañuy wax euh, jërëjëfati Serigne Touba jaaraam maam si Ibrahima Fall ak képp soxna jaara euh, noo ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi sant mboolem jullit ak mboolem taalibe Eh, di leen siyaar a baax te ñaanal sunu jàmbaar ji Cheikh Mouhamadou a Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mbooleem njabootu Serigne Touba gépp ak njabootu maam Thierno Ibrahima Damal Daaru gépp waaye wunu kenn ak waa kër maam Thierno Fall yëpp ak dongay taalibe yi waaw tey nag eh, ñoo ngi ci Daarul Muxti nekk ci kër borom daaru gi eh, ñun nag alxames ba léegi leen fi ñëwoon hmm. alxames ci suba leen fi ñëw Euh, ngir sëttu borom daarul muxti yi nga xamante si ni ñoom dañ fi amal ab cérémonie ab waxtaan mm. boobu ba léegi noo ngi fi di leen toggal ay xewal mm. ak di leen seggal kafe gi mm. ak wàllum xeeti berne yi euh, wax dëgg yàlla bi nu ñëwee fekk nañ fi ñoom euh, suñu jëwriñ yi nga xamante si ni ñoom ñoo jiite wàllum organisation bépp wax dëgg yàlla sëñ Modou Baara Mbacke ñoom ñu teg jël liggéey bi yëpp teg ko sunu loxo waaye nag soxna Maam Issa Mbacke Ahlu Café moom Serigne Modou Fakhri Mbacke moom Serigne Massamba mi nga xam moo nu fi yabal ñu agsi rek dañu noonu liggéey nu ci no ku no xam ci café nga no xamee waaye tey ji bi ñu fi ñëwee nag dañoo teg waañ yëpp sunu loxo nga xam ni wala lépp luy xeetu togg ñun ñoo koy togg lépp luy xeetu café ak ber wàllum ber nekk lu mën a doon ñu ñoo koy def te fii ba màggal gi jeex incha allahu taala daan ko fas yéene ànd ñoom alxames ba léegi noo ngi fi di togg ak a yàq ak di segg café gi di ci sant nag waa euh, euh, maanaam fédération euh, fédération bi nga xamante si nii ñoom ñoo jiite liggéey bi wax du yàlla soxna si doy leen ba tax ñu yëkkati liggéey bu toll noonu teg ko sunu loxo du yàlla ñu leen koy saytul noonu leen ko bëggee nag soxna am instant ak ahlu café nag dafa nekkoon ci ab tournée mm-hmm. côté Ñaamar waaye agsi na mm-hmm. incha allah taala laa ci kanam léegi dina agsi fii ci daara ji moom it mm-hmm. a jëmmal liggéey bu baax a baax kon nag noo sant Eh, incha allahu taala te xam naa ni fii ba ginnaaw suba tam ñoo fi hmm. ba keroog liggéey bi lépp di jeex rek comme ni ko sëñ Tuubaa bëggee hmm. ak eh, borom Daarul Muxti ci hmm. sàkku nag ngërëmul borom Daarul Muxti di mboolem jullit ñëpp yàlla na ci faju di leen sant ñi nga xamante tam yéen yéen a eh, yor wàllum Euh, presse bi mm-hmm. xam ne liggéeyub Serigne Touba bu am solo bi mm-hmm. fu mu mën di nekk rek yéen yéen a fay ne di ko jël euh, taalibe Serigne Touba yëpp di ko jëriñoo kon nag yal na Serigne Touba fay dëkkat mm-hmm. seen télé yi mu jëm ci kaw ci kanam doole Serigne kon nag euh, yàlla am nañ mbégte lool Ahlu Café nag bari na ay bànqaas lool waaye fii ci Daaru Muxti nag amuñu fi benn daayira waaye incha allah mi ngi fi mi ngi ko fi a taxawal waaye mbooleem biir Touba nag ak li ko wër ak côté ñàmbur yi seen i daayira Ahlu Café yëpp yi fi xam ne taxawal nañ ko fa ba ci waa Louga ba ci waa Dakar ak yëpp ak si nañ mm-hmm. nga xam ne ñoom ñoo ne ci waañ wi mm-hmm. aussi ni togg xéewali kon euh, waa Touba mm-hmm. ba ci dakaar ba ci Louga ak Njàmbur ak ñi jigéey fii yëpp ba ci kokkeeg yëpp ñëw nañ teew nañ ci liggéey bi euh, kon nag liggéey baa ngi noonu ñu segg café gi da ko jox taalibe Sëriñ ci yi noo ngi ñaanal baax nag sunu jàmbaar gi soxna Issa Mbacke ahlu café mu yàgg fi loolu te ànd ko wér ndax liggéey bu sell mu toll nii mm. yàlla buñ ko yëkkati rek moo tax mm. kon nag koy sant ak ko ñaanal baax sa borom gën koo defal jàmm mm. saa su rek doole Serigne Touba kon nag liggéey baa ngi noonu <laughs> son naa ngi ko sama sama nag ñoom si Ibrahima ñoom gaa yëpp rek du ma lim su ma limee damay juum mhm. ñoom ñëpp ñu ngi fi booba léegi di segg café gi di ko ta di ko tasaare mhm. amun jot siñ maam Balla ba ci ñoom siñ Daawda mhm. ñoo ngi togg xéewal yi ak berne yi li ci aju lépp di ko jox taalibe Sëriñ Tuubaa ak gan ñi kon loolu wax lu am solo la kon nag liggéey baa ngi noonu macha allah Baol Medias xibaar yu wér te wóor te leer